القوة إلى بالله العلي العظيم لأنه مسنت يا الله بلي جل صلى الله عليه وسلم مسنت سيد أحمد تجاني كريم رضي الله عنه مسنت نفس الإمام على جنب الناس مسنت خليفة الله مع الناس لين من لين يكوا لين يحرق الله لين واحد ما لين واحد ndax yëf yi dafa doy yëf yi dafay ñëw yabeel wala miineel dafa war a doy wala fajar ñaata yoon lañ ko lañ ko guppee wala fajar du ne moom rek fi ne ñaata rajo nekk ñaata télévision nekk Sénégal waaw kër yi li ci ne télévision nga fa la te kër yooyu amul benn télévision boo xam ne tëj nañ ko lu dugg bi ne un deux trois rek ñu ne tëj nañ wala fajar ni loolu nag dafay jeex dafay doy man sama wax benn rek la sama wax du xam nga aar dafa ne am na jinne yoo xam ne ñu nga béy ko ba Tombouctou mën naa ca ñaari taalibe ba ñu bégguñ sax ñu bégguñ de te ñaseen ngi ku leen xamul ba laal ba leen laal leen ba laal leen ba laal leen nga di gën a tuuti rek mën na laa mën a laa pett te ba la pettee kenn mënoo ko faj kon Macky laay wax ak man du ma wax ak ministre bi. <laughs> la ma ko waxoon ba ma demee police. la ma waxoon ne ko su ma jinnee. wallahi bu reppee. <laughs> te moom jeexal na. <laughs> man dama nëbbu de. jeexal na en fidèlement jeexal na. jeexal na bu ko neexee. bu ko naqadee jeexal na. ci la bu mu yàq nag avenir am. mënoon naa rafetoo réew mi ba dem. am way woo xam ne ba léegi mën naa dem ba yàgg sax ñawaat ñëwaat laajaat réew mi. waaye fu ne nii moom. tabletam itam sax bëggatuñ ko wallaay doy na nag mhm. ministre bi aas wax nag kooku na maa ko gën a xam xam naa ministre bu baax mhm. na dem Fuuta laajte mhm. ñu waxal ko bu bu demee muy waxee bu ñu bu ñëwee dana dellu gannaaw man ne li ma koy man li aas wax man li ma ko li ma ko li ma koy jox fukki minute ak juróom laa ko jox buñ delloo suut Walfadjri hmm. danañ xam ne hmm. am nañ am am nañ bal hmm. am nañ char de combat am nañ fetal waaye ñun am nañ loo xam ne buñ ko yónnee léegi bu ñëw ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatulah macha allah